marqué 20 ans d'allocution de son fukki fan ak juróom-ñeent ci ci atum deux mille vingt-trois bés bi taarix dina ko jàpp rawatina taarixu mbootaayu xeet yi président Macky Sall taxawal ab leadership ak gis-gis bu nga xamante ni adduna bi ñëpp ci onde sargal ko ci ci ay jëf yu nga xamante ni jot na ko def méngoog ak ay succès diplomatique yu ci mel ni fexe ba Union africaine dugg biir G20 loolu nekk ndam lu rëy ndamu Sénégal ndamu président Macky Sall nga xamante ni jamono yi mu nekkoon njiitu Union africaine si la tàmbali woon plaidoyer bi wax ko jëf ko dox ko ba tey ji mu am ci ndam. ndam loolu tax Afrique di am beneen taxawaay taxawaay bu am solo ci biir adduna bi président Macky Sall ñëw tenir un discours de vérité ci kanamu communauté internationale wax leen yoon bi nga xamante ni moom la ñu war a jël ngi réew Afrique yi mën a gis seen bopp ci li nga xamante ni moo di doxalinu àdduna bi mu mel ni dañu war a def ay réformes yu mag a mag ci biir Nations Unies rawatina fexe ba Afrique doon membre permanent ci conseil de sécurité am itam droit de veto ci table ji nga xamante ni fa la grande puissance yi di toog. mu mel ni gannaaw bi mu wootee li nga xamante ni moo di réforme Nations Unies euh, président Macky Sall wax na ci lu jëm ci wàllu valeur yi valeur de civilisation yi mu wax waa tugal ne li nga xamante ni ñoom noonu lañu gisee àdduna bi Afrique du noonu la ko gisee rawatina si doxalinu àdduna ak itam nekkin ci biir société bi mu daal di jël ab formule mu ne valeur de civilisation yi du rek prêt apporté porter nga xamante ni bubb la booy solal réew bu nekk loolu mënta nekk ndax réew mu nekk ak ni muy doxee ci noonu dem na sax ba cité ki nga xamante moo di président Léopold Sédar Senghor nga xamante ni ci atum 1960 la tàmpale woon di wax lu ni naka noonu itam actualité Afrique li nga xamante ne moo di coup yu bëri yi nekk na lu yitteel waa communauté internationale waaye li mu fësal moo di Nations Unies li nga xamante ni mooy seen ay casque bleu dañu leen war a jox ay mandat yu gën a am doole ngir ñu mën a am taxawaay yu am solo ci réew yi nga xamante ni am na ay jafe-jafe yi lu aju itam ci wàllu alam gi président Macky Sall wax na ci waaye président Macky Sall li mu wax mooy di faaw ñu taxawu réew Afrique yi nga xamante ni dañu jàkkanteel ak ay jafe-jafe ci wàllum environnement président Macky Sall di fàttali ñu nga xamante ni ñoo di grande puissance yi seen diggé diggé boobee ba tey nag nekk ab bor bor boobu fayaguñ ko ba léegi. si njeexitalu discours am nag président Macky Sall tàggatoo na ak waa communauté internationale. di leen dénk ki nga xamante ne moom moo wutu ci bopp réew mi ci élection yi nga xamante ne ci lañ jëm ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février si atum 2024